tukki ci pale bi Diagne mosuma gis fu ñu la jëlee audience ci pale bi te Macky nga àndal. mais ñi dalal ci pale bi ay mhm. audience ah juste par leur trai traîtrise par seen i njuuj njaaj wala seen yëfu njubla yi ñuy def ah président di photo ñoom mais loolu dina sax incité ñenn ñi ñu ne écoutez mais mieux vaut tamit ma def lu ni weng bu ko defee ñu dalal ma. mën naa ci jëlee ay dërëm oh, pourquoi pas. Bira mais loolu loolu seen seen personalité la. Bira tu prêches un un convaincu. man de 2013 à maintenant. j'ai combattu la transhumance musuma ci. mais même Macky Sall publiquement Macky Sall dafa promettre ni day combattre non ñun kay ñoo dem Walfadjri mu wax ko. waaw boobu ñoo àndoon boobu boobu gagné donc man je kooku vraiment je l'ai toujours combattu parce que j'ai dit que ñun ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu bëgguñu sunu doom yi bu ñu gisee télé eh, jàpp ni boo ànd nit mu am. su ñàkkee da nga ko war a bàyyi hmm. waaw déjà loolu dafa am image bu bon bu muy reflété ci réew mi hmm. moo tax xam nga léegi nit ñi dañu jël ay concept dóor ah dóor mooy trahison rek mooy naxaate hmm. voilà mooy loolu donc loolu vraiment tu tu presse président Macky Sall aussi amuñu problème audience ah xam nga man daaw ma gis daaw du ma recevoir ba nekk fii vraiment juste avant législative laa koy gis toog nañ maa ngi moom bureau am presque quatre heures de temps di waxtaan mais sur certains on a acté le désaccord. ah oui benn bokk yaakaar parce que bi mu créé benn bokk yaakaar laaj nga benn bokk yaakaar bi da ngeen ko teg pour rey Macky 2012. waaw Macky 2012 nag ñoom ñoom. ensuite ah. Fratra ils ont commencé parce que vous n'êtes pas le seul il y a quelqu'un boo xam ne démb la bokkoon. ils ont tout fait avec le président Macky Sall ak moom. mais après il s'est leen a teg fële. parce que Macky 2012 avant ñu dem deuxième tour la woon en 2012. Ah. deux deuxième Sénégal ñëpp xam nañu. candidat opposition bu doon deuxième tour dafay <laughs> gagné ah nga ñëw nga ñàkk ñëw tii dafay dem bëri bu dem bartal lay donc foofu ngay gisee nag les vrais mm-hmm. yow dem nga mais xam nga ni finalement de kii moom boo la ngaa moo ci moom rek boo def nag da ngay ah. nga la ngaa munu dee du ma bàyyi ba pare naan ah je locomotive ak maa am de pour cent laa ko sottil moo on retrouve les mêmes têtes oui c'est ça am na ay ministre gouvernement bi ba Macky Sall bëggee en 2012 bañ bëggee dugg seen dëkk dañoo jënne fetal te ñu ngi ci gouvernement bi toog. parce mm-hmm. que euh, tey nag moom en fait émergence Sonko loolu rek ko waral <laughs> parce que dafa am ay pratiques yoo xam ni. ñun dañ ko doon dénoncé dañ ko dénoncé très tôt. Mm-hmm. au lieu président Macky Sall déglu ñu dégloo ñu dégloo ñu xel mu déglu boobu nag gën nañu fee xale. Mm-hmm. xam nga lu mu jàpp non non gars yi dem na ko. ay xale la non ces jeunes là <laughs> alors que loolu tey moo ko transhumance bi euh, ces histoires de ramener ay nit yoo xam ne depuis Senghor ñi ngi fi ñi xam depuis la deuxième guerre mondiale ñi ngi fi ñi ngi toog Sonko fa la ko jàpp rek yi ñu doon wax presque moom moom la jàpp rek di ko développer ensuite beneen mbir mi mooy bu fekkente bi aussi opposition bi kese kese la ñuy jàpp tëj ci kaso bi ñoom rek ñooy dem wuy ji. Ah. affaire bi kii parce que même bu ñu accuser sa nit. nga jàpp ni kii deful dara. mais bàyyi ko mu dem wuy ji. Ah, yooyu la moo tax nit ñi dem jàpp ni waaw dafa amul lay mais et hmm, ah. mais sa noonu sa noonu démb. Hmm. su su nangoo tey pexe mu jubul.